ci bés bii di fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 2019 ca gore waa Ahlou Lahi dund nañ ca duun ba lu yéeme muy li gën di mbindeef Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu dundoon na foofule fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 1887 ci bu mu njëkkee teg tànkam ca biir di gore tar boole ko ko taw bu waajul dara lu yéeme mu tax shérif mouhamadou lamine laahi ibnu seydina ababacar laahi ibnu seydina limaam mahdi alayhi salaatu wasalaam wax ci kanamu mbooloo mi ni li seydil awwalina wal axirin alayhi salaatu wasalaam dundoon la waa ahlu laahi daal di dundaat jàppee bàyyi laay xew-xew bu yéema ci teewaayu sous-préfet Dakar Plateau Djibi Diallo imam Gore ak mbooloo mu takku sikar si daal di riir donte taw bi bëri woon na lool lii moo daal di xew ci ngoonu fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 2019 ci 11e édition pèlerinage bu Gorée